encore une fois lu noonu a ñàkk benn bi euh, te ci kooku laay jeexale mooy Ousmane Sonko mhm. moom it jël na euh, cadeau ci ndaje ma assemblée assemblée générale populaire lañ ko tuddé mhm. bari lu mu fa wax wax na li nga xamné mom lañ ko miin xamé moy œil pour œil dent pour dent ci mhm. politique lañ nek su ko neexee wax ko wax na président Macky Sall c'est le pire bi nga xamné mom le Sénégal mas a am ci président am problème comme mu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 à quel que soit notre lu parce que parce que bo fàttalikoo 27 juin 2011 après les manifestations du 23 juin ay manifestations am na fi goudi ndax ay coupures d'électricité ay xalé dem attaquer ay kër ministre sëy na bu xaw ma nan sekk mi nekkoon maire yof tal nañ ou fi ci watu yëngu leen mm-hmm.